bu ñu yàlla dimbalee ba ñuy ñëwaat fii nii ren ñëwaat xool si lii nga xam ne lii lañu ñu président digal pour ñu war ko def si wàllu màggal ren bii nii ñu xoolal suñu bët moom balaa mu fiy ñëw ñu xool ndax disposition yooyu yëpp jël nañ ko di sant yàlla bu baax nag ndaxte bi ma ñëwee lii ma fi gis yëpp pratiquement comité CONAGER bi comité national événement religieux màggal 22 li ñu waxoon yëpp def nañ ko maanaam ligne moyen tension yu nga xam ne mooy indi courant bi def nañ si ñaar fukki kilomètres ak juróom-ñaar ligne basse yu nga xam ne mooy dugal courant bi si biir kër gi def nañ si téeméer ak juróom fukki kilomètres muy cent cinquante kilomètres léegi nag bu ñu xoolee investissement yu ñu def yëpp pour màggali ren bi toll na ci deux milliards six cent millions loolu nag lu ko waral mooy li ma wax Touba day màgg màggaay boo xam ne macha allah dafa gaaw moo tax ren bu ñu ñëwee ñu indi poste courant teg ko xëj na déwén ci yenn zone yi déwén dootul doy loolu moo tax dañu am lu ñuy wax programme amélioration qualité de service maanaam courant bu ñuy jox ñu gën koo defaral ba mu baax pour respecter normes yi loolu si wàll boobu nag def nañ si ñaar fukk ak juróomi secteur yoo xam ne yóbbu woon nañ fa courant bu doy mais màggaayu dëkk bi dafa def ba nga xam ne courant boobu amatul doole ñaar fukki secteur ak juróom yooyu changé nañ leen ba léegi am nañ courant bu doy si wàllu lu bees lu ñu indi nag ren si màggal bi mooy xam ngeen Sénégal dafa am ñoo xam ne dañu néew doole te ñooñu lu tax mënuñ am courant lenn rek la mooy amuñu xaalis bu leen mën a dimbale ñu def installation yi ñu soxla seen biir kër ba mun a am courant yooyu nag ren Senelec def na si benn pàcc maanaam jël na junni. ak juróom-benn fukk ak ñett famille yoo xam ne Senelec ñëw na defal leen installation intérieure bi defal leen ay làmp defal leen prise ba pare jël compteur Woyofal jox leen pour que nga xam ne léegi ku si am téeméer nga mun a jënd courant ku si am ñaar téeméer nga mun a jënd courant donc junni ak juróom. menn fukk ak juróom-ñetti famille yooyu ku si nekk léegi am na courant mun na mel courant comme ñëpp ndaxte président def nañu ñu xool si programme yi ñuy def ñu respecter li ñuy wax non seulement équité territoriale mais justice sociale mooy maanaam ñi nga xam ne dañu néew doole te ñu mun leen dimbale ñu dimbale leen loolu daal mooy li nga xam ne ren si màggal bi def nañ ko leeral nañ ko sëriñ bi di ko wax mu ñaanal ñu pour yenn accident yu nga xam ne dinay gàllankoor suñu liggéey souvent yàlla musal ñu si di wax tamit ne maa ngi fàttaleku ku jaaj yëpp ne képp ku ñëw ne la fay ma xaalis pour ma dépanner la su dee am nga paan xamal ne kooku du agent Senelec Senelec dépannage yu muy def yëpp du laaj xaalis te agent yu koy def dañuy ñëw sol tenue Senelec ñu def ci logo Senelec bi dañuy yore badge Senelec aussi ñooñu duñ laaj kenn xaalis ku am panne da nga koy déclarer ñu ñëw dépanner la mu jeex. mbirum aéroport bi moom lu ñuy wax relation contract commerciale la diggante ñaari structure muy Sénélec ak LAS léegi nag démb alhamdulilah ministre des finances abla ministre Abdoulaye Daouda Diallo convoqué nañu man ak directeur AIBD waxtaan nañ ak ñun. ba nga xam ne wax na ñu fay ñu suñu xaalis ñu ni depuis démb joxe nañ instruction ndax compte yooyu noonu ñu bloqué woon ñu levé ko et yaakaar naa ne jot naa message sànq bu ma nekkee ci tournée bi sama directeur affaires juridiques nee na ma compte yëpp levé nañ ko léegi fay nañ ñu xaalis bu nga xam ne mooy facture yi ñu yore woon kon problème boobu nekk ne suñu ginnaaw léegi alhamdulilah